madame la ministre nuy sonu lol di daan sunu doole du am fenn fu nu jaar ba jaay ko ndax yoon bi neexut li nu liggéey nak ko wak 19 ñew ñëw ne ko amatu nu dara li nu doon liggéey lepp ya nu gis la nak ngay doom ju baax di sunu doomi sëriñ di dimbali jigéeni senegal yalla tenkal nu nak ba aksil nañu fi ci Mbaba garas ah madame la ministre jigéen ñi tàllal na la loxo de ndax yaay sunu docteur te Covid-19 yóbbu na sunu lépp. feebar bi dafa am lu mu laaj loolu mu laaj moo tax ñu ne nañu ñëw ñu gisante suñu biir ñu indil leen yóbbante président ci taxawu jàppale euh, accompagner euh, góorgóorlu bi nga xam ne askan waa ngi koy def kon loolu moo doon suñu tànk tey bon yi nga xam ne dinañ ko jébbal gouverneur toll na ci 40 euh, millions 300 000 francs moy ñen ñen fukki ñen fukki millions voilà ak 300 mille teg yoo xam pour région bi la pour jigen kuréel yi nga xamné ñi ngi liggéey ci biir centre bi ñoñu am nañ ci fukki millions yo xamné bu ngeen paré jël ko dem ñu jox leen ko ngeen delloo ko ci kuréel yi ndax jàpp nañ ne kuréel yi fi ne boo xoolee Baba Garage yëpp daanaka euh, wër nañ ñu ngi def liggéey bu am solo. dinañ remettre après bon yu mel nii gouverneur après moom mu mën a xool ak préfet yi ak sous préfet yi naka la ñi ñu ciblé kenn ku nekk mën a jot sa bon soo jotee sa bon da ngay dem post la poste. soo demee poste ñoom dinañ la jox màndaa bi nga xam ne moo correspondre ak bon boo ko jotee da ngay delluwaat ci sa groupement ngeen xool mbas bi ci difficulté yi mu gën a indi ci yéen nan ngeen di mën a dimbali ko ci luy gën a euh, tax ngeen dékku loolu 10 millions yi ñu indi dina nekk luy jëriñ bu baax ci activité jigéen ñi jigéen ñi parce que doot neen ci wax jot neen ci euh, saafonte ba pare xam nañ bu baax 10 millions yi xaalis bi na naka dañ koy defee te dinañ ko def ci foo xamante ni bis bu suivi amee tamit dinañ gis que def nañ ko ci fu jaar yoon ndax jigéen ñi tamit liggéey lañu bëgg te 10 millions yii ñuy jot dina leen aider ak mbas bii ñu jóge ñu mën a jógaat bu baax ci seen ay activités.